waaw suñu dajee tey bi yàlla dafa def ni at mu nekk bu 8 mars jot mësaan jot jigéenu commune Dieuppeul Derklé dañuy daje bokk ndey bokk baay àndandoo célébré ko jamono ji ñëpp xam nañu ni mbas mi moo lëmbale àdduna bi lëmbale réew mi waaye bisu jigéen kenn waru ko bañ a fete looloo tax ñu ni ñun dañuy feeteel bisu jigéen feeñal sargal leen ngir jàmbarte bi ñu wane ngir xarañ bi ñu am mais comme que dañ koy def ci jamono joo xam ni mbas mi mi ngi lëmba réew mi nañu waxtaani mbiru mbas mi nañu waxtaani mbirum ñàqu bi ni ngeen ko gisee waxtaan wu am solo lañ fi am ñu di ci sant di ci gërëm docteur Signaté ak docteur Sarr ndax waxtaan wi fañ ko séentu woon wax dëgg yàlla àgg na fa laaj yi bari na mais laaj buñ fi mënti defit tontu nañ ci benn tontu yu leer nañ

ñoom noo daje bokk ndey bokk bàyyi amal bis bi ñu di leen ci sant di leen gërëm te di leen ñaanal ndax tey jii li ñu naan ñaari loxoy takk sër waaye ñaari loxoy takk tubéy wane nañ ko def nañu jëf joo xam ne jëf ju réy la te du feeñu ba mukk te bis bu nekk nag lii la lu ne mel nag dafay jaar ñu feesal ko feesal ko wane ko wax ko bu yéeg yéen ko ba ñëpp xam ko nii la defoon démb ak barki démb lii la ñu def tey

boo ko xoolee li ñaq yi di indi ci njariñ ak di sauver doomu aadama amul sax photo kon nag nañu ñaqu ji naan biir bi day daw ak deret ji day kile ay seetlu la waaye wane wu ñu xam-xam bi wér boo wax ni ñaq yi moo ko waral kon nañ dem ñaqu ji gis nañu ni bu ñu ñaqoo naam waxu ni jàngoro bi du la dal mais bu la dalee na mu waroon méttee ba faat sa bakkan du ko def kon nag nañu dem ñaqu ji démb ñaqu yi indi woon na coow lu mel ni tey aussi c'est tout à fait normal mu indi coow mais coow li coow li amul solo li am solo daal mooy nañu dem ñàqu ji ñàqu moo mën a aar askan wi ndax loolu la ñu wax nañu aar suñu askan ci dem ñàqu ji bari nañu fi teew tey ñàqu nañu ñu doon duute am xel ñaar ginnaaw bi ñu amee waxtaan wu yaatu bu leer bi décidé nañu dañu dem ñàqu ji loolu mooy li am solo parce que bu ñuy ñàqoo dañuy aar suñu bopp aar suñu askan loolu njariñ kon nag ñàkku daal nañ ko def